Babacar Sylla Ndiaye di acteur bu mag si wàllu politique ak développement li ko itteel mooy soqali Touba moom nag mi ngi si diaspora bi waaye day faral di ñëw foofee mu nekk sax nag li naan picc nga si kaw mais xel maa ngi si suuf à chaque fois moo ngi si ginnaw organisation wu jigéen ñi leen di jàppale ngir ñu mën a def formation financé leen également mi ngi ko tàmbalee woon Kër Ñang a gox yu bare si Touba bi mu ñëwee Sénégal nag doon na seeti ay groupement yu nekk fii si Daaru Xudus fii nag wane na fa engagement politique am si ginnaaw président Macky Sall mi mu jàpp ni xamu ko adhéré wul si parti bi waaye nag sympathisant la te jog taxaw tem ngir jàppale ko ndax suñu sukkandikoo si ay kaddoom li mu def si réew mi kat ñëpp teg nañ seen bët. maa ngi leen di woo ci ngeen reconnaître te xam ne lu leen waaye mën a wax président Macky Sall jàmbaar la wallaahi Macky Sall yónniwu ma ndawam yónniwu ma xawuma ko gisuma ko joxuma ñaari dërëm damaa bokk ci réew mi gis lu baax li mu fiy def. ma bokk ak moom jikko ci lu baax li mu fi def bëgg ànd ak moom ñu ànd def lu baax lii dong moom ma yëkkati ginnaaw loolu ma leen xamal ne ministre de l'agriculture di Aly Ngouille Ndiaye ku baax la ku bëgg social la ku bëgg réew mi la te ku amuk dal la ndax na gis ngeen réew mii nañu góorgóorlu ba bam tàbb ci loxo nit ku dal nit ku du yee na nit ku xam lan mooy valeur doomu aadama nit koo xam ne la teg ci benn danger ndax soxna Ndeye Sadio man nga maa seede ñii man nañ maa seede keroog bañ jëmee élection ñu naan dañuy indi ay oto yi dagg xaw ma leen ma ne leen déedéet man sama nit dañuy dugg oto yu baax dem voté ji man sama nit du ma leen jiital mukk ci luy danger xam nga lu ma xam ak sama nit fu njariñ nekk ma xëcc leen ne leen kaa leen jëg bu danger joxe ngeen ba ma fa bu leen neexee waaye waaye du ngeen mës dugg ci danger ak ñi nga xam ne ñooy président Macky Sall ak ñi ànd ñoom. kon na ngeen fexe ba xam xàmmee ràññee ndax réew mii coow li bari na seytaane waxu dëgg waaye yàq nam xel fi mu ne nii ku dëgërut da nga jëlee ci li nga nekk te dëgg la li nga nekk mooy dëgg de ñu jëlee la ci dëgg yóbbu la ci loo xam ne du dëgg. kon nag kenn ku ne la nga nekk na ci dëgër. naka noonu moom Babacar Sylla Ndiaye mi ngi xëttal jigéen ñi kat ñu concentré wu tamit si développement te bañ di déglu ñi nga xamante ni ñoo ngi leen di nax ndax jàpp na ni kat yoon woowu moom moo gën a gaaw ngir ñu mën a am lañu bëgg te nag ak moom sax jàpp na ni dinañu atteindre seen objectif. ak lii ñu bëgg jigéen ñi nekk ci réew mi gis seen bopp ci réew mi mën a liggéey am luñ fajee seen i soxla mu jàppale ñu ci ñu delloo ko ci jigéen ñi. waaye ñun bu doon suñ bopp kese moo ñu ñor at mi yëpp duñ ko def ci jël suñu yëfi bopp di ko defaat ci nit ñi ndax instant bi kenn ku ne xam ne benn élection amut bu élection commencé nag coow gi dana bari nit ñi day ñëw kenn ku dina woote waaye bu élection jeexee kenn dootul ñëw kon nag yaakaar naa ne léegi kenn warutu warutu leen a mën a nax jour bi ma fi njëkkee yónnee dama ne leen. fexe leen ba xàmme ñi ngeen di nax ak ñi leen du nax na ngeen fexe ba sama wax jii may wax ngeen déglu ko bu baax a baax muy que ne man faale wu ma élection faale wu ma politique. li ma gëm mooy dama créer am mouvement di ci jaamu yàlla ànd ak ay nit bëgg ñu ci jaamu képp koo xamante ni tey woo nga kenn nit képp mu ñëw ci lu mel nii ba jariñu ci dara lu mu tuuti tuuti. am nga ci pay gu yàlla. jigéen ña fa teewoon. jóge si ay groupement yu fasantikoo ñoom ñëpp nag danoo gën a feddali seen coloré si ginnaawam waaye tamit sant ko loolu ginnaaw bi ñu nemmeekoon ni lu mu leen wax ma su ko def te nag ànd bi ñu ànd ak moom njëriñu kase la. ndax euh, bi ñu nday mi xamaleeg yow yàggagul waaye booba ba léegi danga nuy nemmeeku ndax yaakaar naa na sa sa sa ndaw yi ñëw nañ fi ñëwati nañ fi li ko firndeel nga ñëw barki démb. yaakaar naa ne soo demee ci benn groupement it ñoo ca topp kon. mbay mii nag dañ ko lu ñu war a def rek mooy di ko ñaanal nañ ko ñaanal yàlla yokk ko ndax ñun yokkuteem mooy suñu yokk yàlla xam na ni lekkul dara bàyyi ñu keroog bi mu ñibbisee invité la ñu def këram barke Serigne Fallou Mbacke teral ñu ba ñu tedd ñu ñibbi mu jox ñu lu ñu ñibbee kon kooku xam nga ni moom jigéen suqaliku moo ko ñor te man li gën a tax ñu ànd ak mbay mooy nit ki lay wan ni la nañ ànd dem liggéey. moom yëkkatiwul jox de dalay wax nañ ànd ñu liggéey. dañ ne mbir nag boo ko dee def da koy njëkkee ci say bokk yow say bokk yi nga dëkkal di waa Kër Ñang ci ñoom laa gise li tax ma tàllal la loxo bi ma waxee ñoom it wan nañ ma jëf yoo xam ne nga jëfal leen ko moo tax ma tàllal la loxo waaye ma la tàllalee loxo rusuma yaa nu jox mbaal yaa nu jox wan géej wan nu ne nee fu ne gis nan ko lu ne gis nan ko ñun danoo demoon ba dañoo génn ci politique ñun dañ cee pare woon ñun. am yow mbég ci yow lool am kontaan ci yow am yaakaar ci yow. suñuy kayit yóbbu nañ ko daal xudóos gi jotuñu ci dërëm kayit wu ne ñàkk nañ ca juróom-ñaar téeméer te jotuñu ca dërëm maa ngi ñi ma àndal kon danoo wër ba dajal toog waaye nag gis ban dajalee ba toog yow rek yaa nu mën a yëkkati yaa nu ñoom Babacar Sylla Ndiaye di fàttali tamit mu ngi liggéey si wàllu politique si biir Touba di soqali parti bii di APR boole kook di def développement ànd si tamit ak ay responsable yi nekk si biir Touba.